asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 5 février 2020 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la record wala fi nga xam ne moo di ca Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi di sunu lamb la moom Balla gay numéro 2 la ñëw xëy ñëw ci moom tey ak li nga xam ne nii moo koy xaar ci ay revanche ak ay règlement de compte yëglikaay bi nee na jàppal digganteem ak Tapha Tine mu ngi taxaw Bombardier wala Gris Bordeaux mu mel ni ki daal kon sunu lamb tey xëy na jàpp ne Balla daal fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg revanche ya ak règlement de compte ya mu nga taxaw tem jàkkaarloo ak moom di ko xaar ba ca des bi wax ko na tamit Boy Niang mu nga ñëw àndamis kat taxaw moom tamit mu mel ni kon Balla fi mu nekk nii daal la koy nekk bëri na lool ñeneen ñoo xam ne nii moom la leen di nekk bëri na waaye daa mel ni déggoo ci kawi kàddu moom amatul ci seen biir muy ñi nga xam ne nii ñooy waa Ligue Nicolas Enko mu mel ni ki daal fi mu nekk nii ñoom bokkatunu benn galan bu ñuy fecce bu kii feccee ndaw rabbin kële fecc ceebu jën jàppal yëglikaay bi ne li leer ba leer daal bu dee ki nga xam ne moo di raay moom na mu waxee ak la mu wax bokkul ak la nga xam ne nii moom la wili may doomi Ligue Nicolas ja dal di wax mu mel ni ki daal fi mu nekk nii kon Ligue Nicolas Enko daa mel ni mu nga bëgg a xar ñaari gaal ndax ñàkk bokk fu nuy aw ci ay wax wala ay kàddu yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na cay seq moom waxtaan muy Amadou mbay ñëw na ci li nga xam ne nii daal mooy làmb ji ak ni mu demee rawatina nag ña ko muy CNC bi jàpp na ne daal li leer ba leer am na ay nit yoo xam ne nii jël nañ leen jox yóbbu leen ca CNC ba ngir ñu taxaw làmb te daa jàpp ne ñooñu moom taluñu làmb tey suba waxi noppi ndax du ñu assister réunion du ñu ñëw teewee dara ñoom la ñu tal mooy seen business ab bopp kon jàpp na ne ñooñu moom teg leen fa yàqum énergie dong la maanaam yàqum courant la waaye amul lenn loo xam ne nii dañ ko fay yokk jàpp na ne tamit Iba Mar Diop bu ñu demee ba di ko tëj moom dañ ko war a tëjal ñëpp waaye waruñu koo tëjal ñii bàyyi ñii maanaam daal def bi dindi bële def la neex moom noonu la koy gisa moom mi nga xam ne moo di Amadou Mbaye keneen koo xam ne nii moom wala beneen combat boo xam ne dañ cay ñëw yëglikaay bi ñëw na ci mu mel ni ki diggante Papa Sow ak Siteu ah, a doon moo tax ca nar fa nga xam ne mooy ci arène nationale le 21 février record a xëy ñëw dinu ko wax ay rappeur nag dañ caa fas yéene wàcc ñoom dip dund gi sax mel ni ki noona moo tax nag ba tey buñ continuer ci record Pape Abdou Fall ma tëgg làmb nag Abou Nour seq nag moom waxtaan wu yaato yaatu Pape Abdou nag nee na moom daal li am ba des daal moom jàpp na ne day déranger te itam dafay day continuer di déranger loolu mooy wax waxi ki nga xam ne moo di Pape Abdou Fall nee na tamit li leer ba leer daal jàpp na ne diggante tafaatin ak guy gi bëggoon na ko organiser daal waaye jàpp na daal tafaatin xëy na moo d'accordul wala loo ci mënti dégg daal moom bëggoon na combat booba jàpp na ne tamit li leer ba leer mu ngay dànkaaf promoteurs yi ci ku nekk daal nanga xool bu baax li ngay def ndax nag bopp bu tuuti te nga dem ak moom mettiwul moo gën bu rëy lool te foo taxaw muy metti maanaam daal ku ci ne looy def na nga ko xam jàpp na ne tamit sponsor yi moom fi mu nekk nii comme gisatee su leen moo tax mu ne conseil benn promoteur muy dugg ci gaal goo xam ne nii du ca mën a génn loolu waxi ki nga xam ne moo di Pape Abdou Fall la jàpp na ne tamit li leer ba leer daal li mu mën a wax daal mooy que ni ah moom am na loo xam ne nii daal jàpp na ne du ko def tey wala boog bu mbir ma ñëwee itam dana ko àttan ba tey mu ngay wax ak promoteur yi jàpp na ne daal di leer ba leer ñoom promoteurs yi ay exemple daal la ñu war a doon loolu mooy ki nga xam ne nii moo di Pape Abdou Fall jàpp na ne tamit moom mbir lu mu dis dis dis ak lu ca coow la bëri bëri su ñëwee moom loola mën na koo yenu téye ko te du ko def dara nee na ñi ko xam xam nañu bu baax a baax li muy wax mu mel ni kon tey daal Pape ju moo xëy ngardaaju yëglikaay bi record wax fa lu yaatoo yaatu diggante ma ka nga xam ne moo di Abou Ndour combat bi amoon samedi ji nu génn moom caatu ngéwél yëglikaay bi ñëw na ci moom ak sanction yañ ko teg ci wàllum xaalis mu toll ci li nga xam ne nii moo di ñeenti junni yoo xam ne daal dagg nañ ko ko ci wàllum relikaam yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax leneen loo xam ne nii wala beneen combat boo xam ne nii moom le 9 février lay am ca Thiès muy diggante building ak Alaaji Gaynde yëglikaay bi tamit ñëw na ci ñaar ñooñu wan ñu leen waaye bu ñu demee fa nga xam ne nag mooy ca Leewtoo TV moom ca la nga xam ne nii mooy ndaje ba Papa Sow woote woon dimanche ji nu génn ca parcelle Modou Lo teewoon na ci ab vidéo waaye mu mel ni ki nag waa këram yi day wax ja nga xam ne Abdou Bakhoum wax na ko Modou naqari na leen ba ñu ngi ko cay tontu ñoom soog ñu mel ni ki ñoonu mu mel ni ki daal kera parcelle kon neexoon na lool waaye loo ci mën a dégg daal yàgg maar nañuy ñaan yàlla moom réew mi di neex di gën di neex àddina bi sax di gën di neex te itam ñu moytu ndax la ma gis démb ca ndar loolu yaakaar naa ne du lu rafet manifestation wares na koo mën a def waaye est-ce que yàq lu nit ñëpp bokk ndax loolu citoyen pire war na koo def laaj bu may laaj la gis nañ ko bërki démb Pikine ca match ba nga xam ne nii moo doxoon ci diggante Casa Sport ak AS Pikine mu mel ni ki ba mu jeexee itam dóorante bay gaañante am na ca may laaj sama mbokku sénégalais yi wala ma di leen di woo ci ak dal nañu ànd ak sunuy xel te bañ di bañante ndax nag mbañeel bu yàggee la muy jur musiba lay doon. moo ko waa Leewtoo TV sant Babacar ngeen àndoon si bi ñu ànd si jàngatu arène bi Babacar maa ngi la ziar naa sa sensé tey toj nga fi. maa ngi lay fay di la delloo ziar di nuyu ñi ñu suivre ci Leewtoo TV ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci ñoom waa sañse bi moom sama rakk jaa fi jaar Mohamed Dieng bu Lutte TV waaw moom moo jaar fii ma koy nuyu bu baax a baax sama rakk jooju moo ma génne fii tey kon Mohamed jaajëf di nuyu waa Lutte TV yëpp rawatina nag kilifa ga bës ak Lamine sama cheikh. waaw kanam ni ñëw nag si jàngatu arène bi di commencé ak sunu lam sunu lam dafa xëy ne euh, ki nga xam ne mooy euh, Balla Gaye am na euh, ay. combat yoo xam ne wala boog ay revanche yu koy xaar diggante euh, Bombardier Gris Bordeaux wala Tapha waaye tamit am na yoo xam ne combat yoo xam ne si ñetti combat yooy noonu règlement de compte mais am na koo xam ne mooy comme li ñuy wax si tubaab rek troisième larron muy muy moom si touche bi toog di ko xaar tamit waaw loolu mooy loo xam ne nii maanaam ay revanche ak règlement de compte la jàpp ne moo koy nekk waaw parce que bu dee ay revanche moom yaakaar naa ne diggante mag ki nga xam ne nii moom moo di euh, Bombardier revanche la ndax Bombardier da koo daanu mook Tapha Tine it noonu mook Gris Bordeaux itam noonu kon mën nañ na ay revanche waaw revanche nag waa règlement de compte mën nañ man man waaw xëy na booy ñaa la ñu bëgg a règlement de compte ah waaw loolu loolu waa ah, ah, mën na nekk waaye li am solo daal mooy ñetti ñi moom yëpp bu ci ne revanche la pour moom parce que bu dee Tapha Balla da koo daan daan Gris Bordeaux Bombardier daan ko yaakaar naa nag kon tey làmb nag noonu lay doxee maanaam da ngay daan ñii ñi daan la jàppal bàyyil waaye loo ci mën a dégg daal combat yooyu buñ ci soufflé ak Balla Gaye xam naa dina neex askan wi Euh, journal tamit ñu xamal gi nga xam ni combat Papa Sow ak Siteu seen deuxième face à face vingt 21 février lay am foofu nag si arène nationale mais nag lu promoteur bi mu wax mooy képp ku ñëw si si face à face boobu da ngay fay Babacar. waaw loolu daal loo si mën di dégg moom c'est le promoteur Pape Abdou Fall moom moo tëgg làmb ji xëy na nag làmb yooyu daa nekk làmb yoo xam ne nii tey xaalis nga siy def boo si defee xaalis nag il faut nga xool nooy jaare pour génn ci parce que xëy na ñi leen doon dooleel muy sponsor yi comme ni ñu ko mën a waxee xaw nañu wàññeeku kon tey tamit ñoom il faut ñu ay raccourcis yoo xam ne nii ci la ñuy jaar ba xaalis yi ñuy dugal te ay dizaine de millions bu ñu ko mënta jotaat bu bu ñu mënta am bénéfice tamit ñu fexe am boog lañ ci dugal ñu jotaat ko kon le 21 boobu daal xalaat naa ne ku ñëw arène nationale moom ah di nga gis face à bu neex ndax Papa Sow ak lu beesam ñooy ñëw Siteu la tarkinda ku ne xam ne moom na muy ñëwee ak i bagaasam kon dana nekk face à boo xam ne daal bu ca rappeur ya raxee nag ñoom dib dund gis ak ñooñ dana gën a doon tuq su bën saañ bërier waaye waa déet waaye du mën a ñàkk waaye comme Pikine la nag bu ñu xëccoon Pape Diouf taf ko ca ñu ne déet ne waaye ñu ñàmbas ca Wally Seck xam naa moom dana gën a aju moom waaw Pape Abdou daal loolu lañ koy yokkal ñun waaw baax na kenn boo xam naa Pape Dafa mi ngi lay déglu eh, ñeneen ñi nga xam tamit ñoom neexootunu mooy diggante Rayba ak ki nga xam ne mooy Willy doomu Luc Nicolas parce que nee ñu nag ñoom eh, Luc Nicolas nag moom eh, këram mi ngi mi ngi mi ngi waaj a tas parce que Willy day génn ne combat bi dina am Rayba ne na tant que mi ngi si kaso bi combat bi di mën a am Babacar waaw muy loo xam ne nii daal tey xëy nañ gis ko que ni ñoom ñi déggootuñ ci kàddu bu ñuy awee bu kii awee gauche muy wili raay aw droite mu mel ni déggootuñu loolu nag euh, ñun ñaanuñu kol ñaanuñu yàlla loolu am daal li ñu bëgg mooy parce que raay xam naa ko man nit ku baax la koo xam ne nii yàgg naa sonn ci mbirum lig Nicolas ba ñu xamee lig bi ba tey xam nañu ko ak raay ñu seq liggéey muy rafet ki nga xam ne nii tamit moom mooy wili yaakaar naa itam kenn mën da waaw baay bu du doom ju ne am nga bàyyi te moom mooy doomi Luc Nicolaï kon nag li ñu seq ci wàllum liggéey Luc Nicolaï ci turu Luc Luc tey yàlla dugal ko fenn ñoom ñu des ci biti kon liñ leen di wax wala ñu leen koy dolli mooy ñu jéema waxtaan parce que loo gis ci àddina waxtaan a koy sottal mais nag bu ku ne toogee sa coin naan lii mooy am lee mooy am loolu du am benn njëriñ bu bëri li am solo daal euh, raay wili doomam la wili itam doomu raay la kon yaakaar naa ne ñoom ñoo bokk Mbuur bokk Sénégal bokk Ligue Nicolas Enco ñu jéem a xool nu ñuy toogee waxtaan pour ñu arrondir les angles pour que combat bi ñu xool nu ñu koy mën a gérer parce que ñun tamit vraiment euh, Ligue Nicolas ne ci biir ba pare li ci ginnaaw am di am ay jafe-jafe ñun souhaité wuñ ko ko vraiment. journal bi na xëy nag waxtaan na ki nga xam ne mooy Amadou mooy président des promote euh, président des amateurs authentiques moom daal lu ma gis nee na daal gestion maanaam doxinu làmb daal dañ ko war a seetaat te nee na ñi nga xam ne leen copté woon muy ancien mbëri ku si mel ni comme Tyson wala Yékini ñoom nee na daal dañ fa nekk foofu rek def comme genre figurant nekk lu ñu fa làmb seen ay business daal lañ fa nekkal Babacar Amadou Mbaye moo xëy wax loolu ah waaw loolu moom bu dee noonu mu ko waxee noonu la demee itam warut a bu dee da maanaam ñu fal la ci benn poste te yow poste bañ la fal mu wër na yow serviro fa dara lu da fa dem rek di xool bu fekkente ne noonu ko Amadou waxee noonu la demee moom du lu jaar ci aw yoon la ca des nag yaakaar naa ne Yékini responsable la Tyson noonu ñeneen noonu ñeneen noonu xëy na la tax ñu nekk fa ñoom mën na am noonu mu ko waxee moom da caa xam dara waaye itam mënuñu ne la mu wax en cent pour cent am na parce que ah, nit du wax nit kenn du nit liggéeyantu jàmbur waaye la am solo daal mooy que ni képp ku ñu copte ci benn place moom ngir nga liggéey fa war nga jéem ma def la tout pour servir la nga xam ne nii moo tax ñu indile fa boo ko mënta servir tamit am nga la la yoon may wala te ngor nangu koo xel am nga droit kat rendre sa démission dem defi la nga bëgg a def parce que loolu tamit pour man mooy tax mbir yi di avancer. Babacar suñu jógee nag suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy record record dafa xëy beneen euh, président muy président Pape Abdou Fall président des promoteurs moom daal lu mu gis lu mu jàpp nee na moom day déranger moom nee dina continuer di déranger mi ngi wax tamit li nga xam ne combat yi nga xam ne bëggoon na ko tëgg nee na moom pare woon tëgg ki nga xam ne muy tafaatin muy ak guy gi mais nee na kaaw ñoom tafaatin daal noo xaw woon réticent sawaru woon daal bu ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy guy gi Babacar waaw loolu mu xëy ñu xëy tey dalal ko muy waxtaan mu yaatu mu seq ko ñi nga ki nga xam ne nii mooy Abou Ndour waa Pape Abdou Fall nag que ni déranger ak continuer de déranger waaw loolu moom li am solo daal mooy ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal que ni nag ku nekk rek jàppe sa bopp ni nga jàpp ni nga ni nga jàppe sa bopp jàppe ko sa morom pour man suñ ko defee rek lépp dina rafet parce que ay sénégalais lañu ñoo bokk réew mi mënuñoo defante lu ñaaw mënuñu ko waxante yaa ngi dégg kon nañu fexe rek lépp rafet moom nag yaakaar naa tamit tey am na mérite ci làmb parce que ku ne gis na Pape Abdou Fall ba mu ñëwee ba tey li muy def ci làmb vraiment di tëgg ay combat yoo xam ne amateur dañ koy soxla des fois làmb ji xaw a dëgër sax ci combat yu mag mu xëy génne combat te na ko gis nga ren bi coow li bëree dem na ba presque taxawal na Siteu taxawaloon na Ama Baldé ak Tapha far yàlla ñëw mbir ma sottiwul mais taxul mu bàyyi continuer na taxawalaat beneen combat bu mag muy diggante Papa Sow mi ak ki nga xam ne nii moom moo di Siteu kon mu nekk ki nga xam ne ni daal dañ ko naan mention spéciale waaye loo ci mën a dégg daal euh, ñoo bokk réew mi quoi nañu rafetal lépp rek nañu rafetal soow mi duggee ko jabi daal moo am solo journal tamit si xarima abondum ñi nga xamal ne euh, équipe nationale bi nga xam ne jigéen ak góor na war a dem participer championnat d'Afrique fee si Alger nee ñi nag liste bi génne jigéen nag ñoom ñaar kese la ñu tànn muy Makhari Samb ak Anta Samb nag si góor ñi ñeent la kii di Adama Diatta Jean Bernard Diatta Blaise jaata ak Thiaka Faye maanaam dafa mel ni si góor ñi daal kenn doo nga fa nekk séeré ñëpp ay joolaa lañu Babacar <laughs> sama mbokk joolaa yi ma di leen nuyu waa xam nga joolaa yi moom mais joolaa moom boo ko tànnee bàyyi séeré dafa mel ni ñoom benn bi la rek benn bi nga tànn ndax ñoo bokk jàmboñ ak agéen ñoo bokk lépp joolaa ak séeréer benn lañu et puis Sénégal tam noonu la demee pël yi ak joolaa ak séeréer yi ñëpp ñu ñëpp benn lañu ko ay kal lañu waaw di wax ne que daal équipe nationale seen dem boobu ci Algérie yàlla nañu ñu gagné fa ay médaille d'or indi di profité di ci nuyu ko mel ni Malick Ngom ndax ñu ngi suñu liggéey depuis Algérie moom ak Sitor Ndour ak ña fa nekk ñëpp kon daal di wax ne équipe nationale yàlla nañu gagné mais di nuyu joolaa encore une fois rek xam naa ne daal comme ñoom ñoo fa ëpp na fexe ba médaille yi ñëw loolu donc laa laa leen mën a wax yéen joolaa di ci nuyu ku mel ni Rama Diédhiou Casamance moom tam di joolaa dëkk fii parcelle mais actuellement mu ngi Ziguinchor Babacar nu jeexee nag ak euh, Leewtoo TV Leewtoo TV dañoo xam daal ki nga xam ni mooy euh, Modou Lo keroog si euh, si inauguration si bu ñuy bu ñuy bu Papa Sow doon taxawal écurie bu bees bi am na ay kàddu nag yoo xam ni dénk na ki nga xam ni mooy Babacar mi ngi expliqué tamit combat bi ko marqué moom Balla Diouf Babacar. waaw <laughs> Modou xam nga moom tooñkat la xarañ <laughs> ma koy nuyuwaat xam nga keroog wàcc rek ma gëtandu commencé ko kii tout ja jaxase ko ak Balla mu ne Balla da koo daan ba pare mbëkk daa daan Balla ba pare Balla mbëkk ko Balla. ne ko pourquoi nga daan ma bëri dóor ma muy lu neex nga gis waa waaw waaw Balla Diouf la quoi mook la Diouf waaw le cœur de lion bu nekkoon écurie Fass mu mel ni kon ñoom mbër yi ndeysaan bu ñuy bëree dañuy ciy def kaani ba mu saf mais bu jeexee da ngay gis kani jàmm gis nga kere ñoom ñaar ànd lëngoo dem dugg ci biir kaf forêt ku ne sa moroom photo ak doom seen seen naa ko sax mu téye doomu Balla Diouf muy Mohamed seen naa ko mu téye ko ci tribune bi muy muy image yu rafet muy loo xam ne nii daal xam nga nice na trop kon moo tax daal ñoom ñi maanaam carrière bi ñu nekk nii di ko entamé comme li may wax rek nañ ko rafetal parce que day jeex te kenn xamul xam ma tey jamono boobu mu ñuy soufflé Modou Lo ak Balla Diouf metti woon na trop tàngoon na bari woon na tension mais anamu tey ay at lañ ci tegaat leneen xew ñu bokk tey lu ñuy défendre fu ñuy lu ñuy défendre parce que lu tax ma wax ko mooy ñoom ña fa ñëwoon kër ñëpp dañu ñëw pour jàppale Papa Sow yaa ngi dégg kon lépp daal nañ koy rafetal parce que ëllëg a tax te ëllëg day ñëw te ndey Kumba Fall tey la mercredi li nga sol tey ma sol ko tey mën na am suba duñ ko sol kon moo tax nag na ñuy sóor loolu quoi waaw waaw ko loolu am na solo nag si kàddu yi rafet yooyu leen tàggoo leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama suñu yaay merci nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astane DG Barama chéri Khadija Diallo nuyu samay doom Mame Diarra Penda yaa Grand Fallou sama xarit naan ko euh, je te fais un grand bisou nuyu ki nga xam ni mooy Abdou Gueye euh, jàmm euh, Baye Fall jàmmagan papa si depuis États-Unis maa ngi koy nuyu du nuyu ki nga xam ne mooy Aïda Diouf nuyu aussi sunu yaay naan ko yàlla na jóg ak jàmm ak salaam nuyu aussi Ramos Ndiaye Babacar waaw nuyu nañ ñëpp comme ni nga ko waxee ah, di nuyu suñu père Alsane mu ngoo ngi nuyoo ñu ngi koy nuyu. El Capo El Al borom ñetti galon yi nee ko yaay capitaine u Leewtoo waaw di ko nuyu di nuyu tonton Diaw di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ni ñu ngi suivre Asi ah, Diagne du ñi nga xam ne ni daal ñëpp ñooy suivre ak tamit groupe yi nga xam ne ni Babacar dañ ko fa ajouté mu fa xam nga ñi nga xam ne nii mooy ñooy mbër yi fair play ak waa andsim bi nga xam ne fa laa nekk di temps ñu di ma teg lu metti ci ay entraînement maa ngi nuyu waa andsim bi yëpp rawatina coach su Demba Sis ak coach su fa nekk ak jigéen ña fa ne maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax képp ku fa yëngu rek fan sa club Leewtoo leen fàtte ñoom Cissé ñoom Fat Diarra ku bombar ji ak képp ku ne ci kër yi ak mbër yi fa ne maa ngi leen di ñaanal ñoom itam ah, waaw tey la leen met Pape Sène di dalal fële ca biir comité sénégalais des droits de l'homme muy lu ma neex parce que wax rek rek yàllaa ñu boole ñu bokk dëkk commune Ndondol ma dëkk ak yaay mu dëkk Ndondol yàlla boole ñu tamit muy jóg ngir lu développé dëkk ba woo ma ca ma di ko ca jàppale te yaakaar naa loola ma ko doon jàppale tey aw si gàcc te nit ki tamit loolu lañ koy doyee daal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii waa groupe baax tam du leen fàtte maa Samba Dieye président bi waa Ndiaye production képp koo xam ne ni daal yaa ngi Sénégal axlu làmb nuyu naa leen yàgg maar waaw noonu la yàgg ndaanaan la nag yàgg garmi la yàgg ndar yàgg ndar-ndar la yow xam nga ne ndar-ndar ci sañ-sañ muy géej gi am na ndox muy nuyu waa ndar yëpp rawatina sama soppe ba ma lal Signor Diagne ma ca RFM di ko ñaanal suñu wayjur woowu di Papa Golbert yàlla na fi yàgg te wér bu baax ba ak képp ku ma mën doon di wax rek tàngoor woowu ca ndar yàlla na ko yàlla si réew mi yëpp tàng sax waaye yàlla lépp seddaat amin Babacar ba suba incha